Thank you. ci sëriñ la guerrière mhm. ñu soobu ci waxtaan bi ak l'œil bu bon temps waaye l'œil bu bon temps ñu waxtaan mm. rek ci yëf yi donc euh, mënuñu tàmbali parce que nag euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour spécial parce que nag dañuy wax le vendredi de la liberté mais le vendredi de la liberté aussi pour la presse euh, paasan ñu daal di nag retirer signalu ñu dagg signalu Walfadjri waaye it retirer li nga xamante ni moo di licence mais li tax ma la ciy interpellé mooy jour bi ñuy def lu ni mel yow yaa ngi woon ci plateau spécial bi nga xamante ni moom la Walfadjri doon def ginnaaw déclaration bi nga xamante ni le président Sall defoon na ko li ñeel report euh, présidentiel bi ñu gis benn xaatim bu nga xamante ni. le l'avocat du monstre di Moussa Bocar Thiam bind na ko di leen di wax ni que yéen ñi nekkoon ci plateau bi da ngeen doon euh, tenir de propos haineux di xirtal askan bi ngir ñu daal di génn manifester yow mi nga xamante ne taskatu xabaar nga nekkoon ci plateau bi après bi nga liiree loolu nan la la def ak euh, euh, mesure bi ñu jël pour retirer si signal bi qu'est-ce que ça mag de boo waxee loo xam ne du dëgg. Mhm. dana dis loolu nga xool ko ne ko waxoo dëgg. Mhm. dégg naa wax bi waaw mag boo waxee loo xam ne du dëgg ñëpp di seetaan di gis di dégg ñëpp a ngi toog di xool le strict minimum d'image mhm. la Walfadjri doon wane keroog on voyait kii Issa mhm. mu taxaw ñuy seen les hommes de tenue derrière lui mhm. waa ay xeer yu daanu ci mbedd mi espace de de combat la si nit mën kenn de bataille la nga taxaw wane ñu ne la non tu inciterais les gens à sortir. dafa am benn affaire bu am boo xam ni léeg-léeg man dafa am yoo xam ni dafa ma soof soof ba ni ma soofee moo tax léeg-léeg bu ma see wax ma xool dafa jug. Moussa Bokar Thiam. musaa maa ngi laa nuyu. gis nga Walfadjri ba muy juddu 1984. Mm-hmm. xaw ma fu Moussa newoon. xamuma ko. mais on est de luy faire jouer un rôle qui ne doit pas être maanaam bu mu nangu ñu def ko bouton bu mu nangu ñu utiliser ko dafa am njaboot am papa am yaay am ay bokk bu mu nangu ñu dugal ko ci loo xam ni daka sonal après jaru ko te nit lépp loo xam ni angi siy yëngatu da nga si war a dem ak xel loo xam ni sosu na 40 ans et j'ai entendu Souleymane Jules Diop démb sur RFM dire que ñun bu leen delloowul licence bi keneen delloo leen licence bi. Mhm. te muy dëgg. bi ci des mu ne wax naa ak sama rakk sunu sax jarbaat la la wax. Mhm. Moussa bokkar wax na ma ak moom ne yii moom et président dafa nekk ak ñoo xam ni te président dafa war di nekk ak ñoo xam ni seen dënn dafa yaatu. Mhm. ça veut tout dire. de 2012 à 2024 le président Macky Sall sous son air ak ñi mu àndal dafa mel ni dañ ñoo dañ leen a yónni si ñun dafa mel rek nga toog ñu ne la eh yónnee ne leen diw de. Mhm. mu ngay ñëw ak ay musibaam. pour mu mugal leen. exactly nan ngay xoolee un support média Moussa Bokar Thiam moo waroon ñëw taxaw fii taxaw ci bunt bi ànd ak ay nitam ne bu kenn laal Walfadjri c'était ça son rôle. Mhm. Son rôle, c'est de protéger les supports médias. Son rôle, c'était pas d'appeler un Cheikh Niass, lui dire arrêtez le débat, sinon ma dagg ma dagg antenne. Mhm. C'est pas à lui de le faire. Mhm. zel la def tooñ la def. Mhm. jaay doole. Sénégal nag mooy dëkk boo xam ne léegi boo toogee ci oto buy daw 100 millions yow da ngay yaakaar ni yow asamaan seeg suuf si ak moom. bu la yàlla dimbaliwul lool. nga sànku. Moussa on na aucune once de nullité négative. à son endroit. Par contre, à un moment donné, vu son attitude, mm -hmm. moi j'ai j'ai cette là d'être si irrespectueux à son endroit. Mais je ne vais pas l'être. Mm -hmm. Moussa. Mhm. licence su jàmbur mënoo ci dara. yow ak kaa àndal ak kala sant bu dee dañ laa sant ak kala bu dee ak di jël sa bopp licence ab jàmbur daa ko jëlaat ci del delloowaat fa mu nekkoon. Mhm. te nag may wax fii. Mhm. képp koo xam ni a ngay jàpp ne aw gor laal gor nga mhm. bu la sa moroomi gor jàkkaarloo ki aw di def safaan mhm. bal ka ñaan bu ko ñaan mhm. bu ko wax ngir yàlla bu ko wax jàpp ci nee ko musaa Bocar Thiam munoo ci tous la preuve Walfadjri fonctionne non bah oui quand vous payez mille francs bu baree ba bari cinquante mille francs la l'année vous avez vingt deux mille chaînes chez vous le IPTV où est problème. où est le mal. les Sénégalais vont prendre cinquante mille kër gu nekk am IPTV. Mhm. les antennes traditionnelles c'est fini. TNT bi c'était pas une excellente idée de l'État du Sénégal parce que fi IPTV di am. Mhm. nga ñëw créer fa TNT dem mhm. fekk Excaf Télécom. ni ñu def nii Walfadjri mais dañ ko def Excaf Télécom ci beneen fànn. Hmm. ils ont massacré Excaf Télécom di Diagne làmmiñam sama nopp. jël quarante milliards. dugal ko ci TNT. Mhm. hélas état bi ñëwaat nanguwaat TNT bi yow dugal nga sa xaalis ba pare delloowul sa xaalis nangu na sa TNT. Mhm. nasaxal Excaf Télécom. pour les beaux de Canal Plus. Mhm. canal bi nga xam ni Excaf da ko doon teree noy voyez un peu. donc quand vous avez des dirigeants. nag sëñ bi léeg-léeg nit. nekk am chance jiitu. Mhm. mais du doon jiit. Mhm. mën ngaa jiitu te doo nekk njiit. njiit valeur la vertu la. Mhm. personnalité la. tey jii nii ku ne mënoon na woo Moussa Bokar na ko mais Moussa les gens de Walf il faut arrêter. ka wax mu ne la sëñ bi ñii ils font leur travail. par contre am na dara dayo bi. jël téléphone am woo Cheikh waxtaan mais Cheikh. gars yi aussi xam nga rek xam nga xam nga parce que xam nga coow la pression là. il faut gérer loolu loolu yomb na. mais après ñoo xamul baax baax. seen lépp brutal. jaay doole. ma ne la après bu ñu doon jël deux cent millions di la ko jox nii sax dañ la koy buux song la xeex seen dara moo àndut ak tekk ak rafetal. barewunu safewunu soof nanu soxor nanu nga jël support média ñu ne la y a 200 personnes donc 200 familles qui gagnent leur vie à Walfadjri nga ne way da ngay tëj boo nee da ngaa tëj Walfadjri daa wax la neex mënoo kàddu mënoo si dara Walfadjri fonctionne sur YouTube. Mhm. Walfadjri va gagner 10 milliards de fois plus sur YouTube. Mhm. si les Sénégalais veulent que Walfadjri continue à exister c'est très simple. Mhm. y a 4 millions d'abonnés et poussière sur Marodi yàlla na yokk. sur les chaînes qui font les pièces théâtrales ou téléfilms. il y a tous les sénégalais abonnés. Mhm. sénégalais nag ñoom tamit dañoo am seen tànneef. moom daa xool ndax li la lii xew nii métti na la wala méttiwul la. aujourd'hui Walfadjri a un million d'abonnés et poussière c'est trop mhm. bu dee sénégalais yi métti na la jarul xuloo jarul xeex Moussa mhm. licence bi gàddul. amul benn problème. jëlal YouTube. sénégalais yi nous sommes 18 millions d'abonnés de sénégalais. Mhm. na war fa am 5 million d'abonnés en une semaine. 5 mhm. millions d'abonnés à la fin du mois tu paies tous tes salaires. Ah oui. and you don't given lu maa bañ a tudd about Moussa Bokar ak la ànd ak moom ak la nuroog moom. ak la mel ni la këfulu la dem la kii non soxla woo foofu la ma yemandi. <laughs> foofu ngay am. <laughs> papa da ngay ter nit bu la tegee loo xam ne neexu la. <laughs> bal ko ni daf la metti hmm. nee ko sëñ bi amul problème. ne ko dara safuma. <laughs> noo farege ñeente. da nga tëj licence jël jarul xuloo jarul xeex. Mhm. bilaay la presse là qui se solidarise c'est bien. oui loolu laa la bëggoon wax sax démb éditorial euh, commun bi noo ko noo noo ko jàngatee. ils ont fait très bien écrit comme d'habitude mais ça mbir mi dépassé na loolu. Mhm. dama lay wax sama xalaat ak bopp. waaw. quand on me parle de veillée nocturne veillée nocturne c'est quoi à 22h bu voulez que les gens soutiennent Walfadjri lu ñu fiy def guddi. Ah, ils l'ont décidé je respecte. oui waaye lu nit ñi di def Walfadjri 22h jëm guddi taali sondel waay da ngeen di jàppale Walf. Mhm. xëy leen bloqué leen liggéey bi. bu benn rédaction liggéey ñëpp à Walfadjri. am ci plan d'action bi waa journée sans presse. waaw euh, xam nga yéen ngi wax journée sans presse. Mhm. man waxuma loolu dama ne. Mhm. lu dal presse sénégalaise tey. Mhm. sàggante moo moo ko yóbbee 2012 ak léegi taxawaay ba ñu amoon ca 2011. buñ ko amoon nguur gi du ñu yàpp. oui danoo yàpp presse sénégalaise. parce que presse sénégalaise moo yàpp lu boppam. presse sénégalaise moom la moo nangu nguur a président Macky Sall di ko utilise but ba but maanaam. bu ñu bëggee dal ci kaw Salma wala Paasan mhm. dañuy ñëw jël journal sàngam rédacteur en chef ba jël wala directeur de publication ba ñu massacré diw chargé dossier Ils l'ont fait sur Karim, ils l'ont fait sur Khalifa, ils l'ont fait sur Sonko. Mm -hmm. À chaque fois qu'ils ont voulu abattre un, un acteur politique, qu'est-ce qu'ils font? On utilise la presse. Mm -hmm. Mais même sur, des journalistes. Idem, idem, ils ont dit le téléphone parle. oui Toro Mahu Mandela ñu dossier wam ba da nga naan mais kii. et c'est toujours la presse. xanaa keneen la ñuy waxal donc cette presse là malheureusement euh, ci jamono je me rappellerai toujours en juillet 2004 bii ñu teewee Madiambal Diagne. Mhm. ci même. conditions yi ñu téye woon Pape Alé avant Madiambal y a eu Mamadou Thierno Talla en 2000 moom la njëkk a sur la Casamance. après y a eu l'histoire du Sud et cetera sur Salif Sadio. Mm-hmm. mais mais bloc bi presse bi defoon bloc. Ah, mais booba temps il y avait feu Babacar Touré yàlla na ko yàlla yërëm mm. il y avait Alpha feu Alpha Sall mm. Simpix boobu temps mm. quelque chose aujourd'hui j'ai mon pote à moi Bamba Kassé que j'aime bien mm-hmm. mais Bamba Simpix ne marche pas comme il faut c'est-à-dire que nekkul comme li mu on a l'impression que ça bouge pas Bamba tu vas m'excuser mais c'est ça après tous les autres sur le cas Pape mm-hmm. il a fallu nit ñi yuuxu yuuxu ba dernière minute a jóg kap jóg réagir mais bon après après coup. ay confrères ñooy toog ci plateau yi di ko yàq sax naan du journaliste. non li gën a garaaw mooy dañuy yuux ni ci kaw ci suuf ñu wax leneen. Mhm. aujourd'hui sur le cas de Walf man jot man j'ai reçu jot naa ay voilà mais booy vous ne faites plus du journalisme ce que vous faites à Walf là vraiment ce n'est plus ça yow mi maa wax loolu. Mhm. yow diggante dix huit heures vingt deux heures. Mhm. yaa ngi liggéey ci influence. Mhm. yaa ngi bureau ministre ba yaa ngi bureau feneen ak feneen. voilà le drame. Mhm. aujourd'hui àdduna bi moo toll gis nga àdduna moo toll àdduna danoo toll ci àdduna yu fulla. Mhm. àdduna yu fulla. faire face waaw ma àdduna yu fulla. mooy maanaam li Vladimir Poutine di def. nga xam ni tubaab bi dañoo ñëw ne ko léegi dañuy tëj sa compte yëpp. tous les comptes bancaires des Russes. ba ci Abramovich bi moomoon Chelsea. looloo daaneel Chelsea. ñu tëj ay comptes mu ñibbi Russie. Poutine ne. gars yi rentrez chez vous am problème ne léegi yéen comme yéen da ngeen tëj suñu ay compte mhm. léegi man pétrole bi ma leen doon jaay ci dollar ak euro. Mhm. ruubul ngeen kaa jëndee sama xaalis. oui ca saa sa ruubul bi. naaw. Mhm. Poutine romb taux de croissance am yokk. ay bénéfice am yokk léppam yokk tubaab bi toog naan waa léegi nu noo def. di jël loolu ak loolu di ko jox dof bële Zelensky mais théâtre kat bu boobu nga xam ne moom def nañ ko xeexkat te du xeexkat dugal ko ci naata xóona mbiru naata xóona di ko jox alal ju dul jeex Poutine di ko saa yu ñu ko joxee alal Poutine jàpp ko dóor làpp ko ba bien bàyyi waat ka bu xaalis ba jeexee mu waat tubaab bu pensez que lan moo ko ci génne Poutine fulla fulla aujourd'hui je dis li ma ko doon waxee CNTV wala Excaf wala feneen mhm. wala 2S ak feneen ak feneen Walfadjri avec du soutien de la presse tant mieux mm sans soutien de la presse pas de problème parce que à un moment donné il faut savoir se prendre en charge aujourd'hui il y a une possibilité même la presse sénégalaise même la presse sénégalaise aujourd'hui elle est concurrencée par qui les sites internet mhm. da ngay gis pas Assane boo xam day toog xamul dara ci presse am benn Seydina magam la bu nekk fële ca Paris yónnee ko matériel paasan xëy teg ñëw assister point de presse taxaw dëgër fit mhm. jékki-jékki teg ci antenne bi way du dëgg du yoon waaw léegi loolu c'est parce que la presse a laissé du vide tous ces journaux là doivent faire du updating hmm. xam ne que dañu war a dañu toll ci jamonoy digital hmm. journaux yi jaratul bu njëkk le plus vendu des quotidiens c'était l'observateur ils étaient à plus de exemplaires mhm. aujourd'hui boo leen laajee je ne suis pas sûr qu'ils sont à exemplaires mhm. parce que nit ñi jëndatuñu kayit gi mhm. lépp ngi ci téléphone yi ces gens doivent s'adapter et c'est là où la presse doit doit doit se rendre compte opportunité am na. Mhm. pour que mu bañ a dépendre ci état bi kaa teg pression wu impôt ak leneen ak leneen. Mhm. bu ko defee liberté am yokku. su liberté yokkoo information bi gën a dëggu. Mhm. su information bi gën a dëggu sénégalais yi gën a féex. nguur gi nekk sous pression. def yëfi nit mais baadoo la boo xam ni xamut yee laa nga dénk ko teg ci kaw njoowaan nan ko wàccal du hmm. wàcc. problème yi day fil ba ngay dagg. d'accord mais également permets-moi un peu euh, hmm. Salma. ñu ñu revenir un peu euh, ci lii bi Passane euh, tey on a vu que toute la presse est soudée jëm tey dafa lii moo dal ci kaw Walf. mais raison pour laquelle hmm. ñun ñëpp a joxante également loxo c'est très wax tey ci veillée nocturne boobu nga xam ne dañ koy am dafa bokk ci ay plan d'action dañoo soobu ci xeex ak monstre bi ñu toftal si ay points yoo xam ne Euh, moom la ñu nar a xeexee euh, ñi nga xam ne ñu ànd si nag ay association de presse ñu gunge association de presse boobu bu ñu ko waxee mhm. euh, c'est des ñi nga xam ne ñoom ñooy directeur de publication de près des wu ay groupe de presse ñëpp ba ci ay journalistes yi reporters yi. Mm-hmm. ñëpp euh, toftal si ñu ànd pour bokk xeex bi euh, te xeex boobu plan d'action yooyu bari na yoo xam ne dañ ko ci mm-hmm. dañ ko ci dëxëñ édito bu démb bi euh, firnde na gis nañu majeure partie mm-hmm. presse bi ñëpp a ko daal di fësal mu doon lu ñu rafetlu et à rappeler également semaine prochaine euh, d'après euh, coordination des associations de presse dañoo prévoir côté du lundi au samedi lépp loo xam ne ay RV gouvernemental la mhm. te loolu tamit dañ koy rafetlu euh, ci ci xeex bi léegi nag processus bi nu muy demee mhm. ñu gën a baral euh, euh, xeex bi gën a corsé mhm. yi mais dañuy rafetlu Seydina Oumar Ba taxawaay moi moi je je je je loue je salue mais dama ne ma xalaat ma xalaata bopp moo la. Hmm. egg si nañ foo xam ne mënoon na ñàkk. Hmm. xam nga léeg aussi baax na au-delà de tout si si le soutien de la presse à l'endroit de Walfadjri ça coule de source évidence la hmm. mais il s'agit pas aujourd'hui de cela. il s'agit de libérer la presse en général. boo paree ci Walfadjri bu subaa ñu def ko sud après ñun ñëpp ñu jogaat waaye solidarité sud. non ce truc là doit cesser c'est-à-dire que li am nii ak nguur président Macky Sall bi dafa war a pour mu dakk presse sénégalaise ñooy am fulla la ma la wax sànq ñooy libérer seen bopp dootuñu dépendre ci impression papier boo xam ni da ngay toog naan way grand bi xam nga mënuma bind ci moom parce que moo may régler imprimerie. Mhm. la réalité c'est ça yooyu nag baa ko lijjantee YouTube Google américain yi ñoo ko moom. Mhm. Macky Sall moomu ko Moussa Bokar moomu ko. nous jël cette information là digitaliser que davantage. Mhm. liggéey ci YouTube bi de sorte que ñi nga xam ne bokkuñ ci secteur bi te duñu ay journaliste mën a libérer. la mhm. place ainsi ñu nettoyer. Mhm. est-ce que comprendre nga. à partir de là. liberté bi presse bi di am parce que boo toogee nekk sous la menace de dañ lay tëj ak duñ la tëj. mën nga limité wu. mais boo nekkee ci YouTube bi kenn xanaa tëj internet. Mhm. te baa tëjee internet moom secrétariat général américain na la ubbil internet. immédiatement nga ubbil TikTok nga ubbil TikTok. ak leneen ak leneen. Ah. dafa nekk un pan géostratégique et géopolitique. Mhm. léegi leen ñu toog ñu ne dëkk bi mardi um si dana tàkk. sunu xel bu gàtt rek ñu ne non jàmm rek incha allah. Mm-hmm. bàyyi laa ëllëg dana woon ndakaaru ba but. Mm-hmm. sal Sénégal salaamatan. oui dégg naa wax bi. Mm-hmm. aujourd'hui lii dal wal fajri waratul am warul dal beneen support média warul dal sud warul dal RFM warul dal keneen. mais pour mu bañ a amati. faut que mu am une solidarité sincère waxuma solidarité de façade solidarité sincère. waxuma toog ak ministre bi wax lenn. Mhm. génn ci biti yor kayit yor pancarte. Mhm. foofu la ñuy waxee. en tout cas ci plan d'action yi moom man gis naa ci war a waxtaan ak. présidence boobu moom man je suis pas d'accord parce que nag nit mënul jël ndogalam boo ko Thiam moo jël ndogalam ba pare te xam nañ ci nekk ci ginnaaw ah, buñ nit ñi nit ñi lettre waaw boobu mën nga ci ñëw mais bu fekkente ne nem di waxtaan ak moom moom mais rencontre avec le médiateur de la République après mardi bi mooy doon journée sans presse euh, mercredi bi mooy évaluation et mise en place euh, deuxième plan d'action si waaw moom laay wax ànduma ci parce que monstre ba tëj mhm. monstre bi avocat moo tëj waaye mosu bi moo ko jox ndogal. donc ni ñuy bañalee classe politique bi jago dialogue ñu ni tamit noonu la ñu war a bañee dem di waxaat waxtaan ak ñoom ndax. loo ay di jàmbat moom la. waaw bind lettre comme ni opposition bi bindee woon rek seen lettre. Euh, candidat spoliés yi ba ñu bindee seen lettre xam nga yow da nga toog fii nga ñaawlu ko. donc ñun aussi monstre bi moo tëj. monstre bi moo tëj avocat du monstre. bu tojee parce que monstre bi moo ko jox ndogal ñu ni tamit waruñu bind monstre bi benn lettre quoi que ce soit waruñu ko bind. non au delà de tout cela sax li gën a important ma yaakaar ma xalaat. Mhm. xam nga moo la lan. Mhm. que la presse fasse honnêtement son travail. Mhm. cette presse là a été complice en partie bu ma ko waxee confrères yi ñenn ñi dañ may mede mais man. boo ma meree ci kaw dëgg. bon nit ñi li ñuy bañ mooy généraliser. non cest à bu amee bu ñëpp yemee rek. am na je dis moi je dis une j'ai bien mais ñu ci bëri dañ naan presse presse wala ne journaliste yi loolu loolu moom kenn du ko nangu parce boo ko waxee rek. am na ñoo la les de le dire. Mm-hmm. les gens sont libres de dire toute la presse est corrompue. maintenant il va falloir que chacun fasse de sorte que duñ la ci boole. benn. non non boole tout rek dugal nga. non non je tout moom moom war nga déglu dama ne. ki nekk ci mbedd mi ki nekk ci mbedd mi. bu ko neexee taxaw ne presse bi yëpp ay truand lañu. munoo ci dara lenn lenn mooy tax du la ko wax. mu ràññee la ne newoo ci. d'accord beneen bi si des. Mm. moo di ne c'est vrai que toutes les généralités sont fausses y compris que je viens de mais kooku mana Ah, yow ah, ak keneen ak keneen am na koo xam ne mu ngi ci mbedd mi moom xam lu mu xam mhm. journaliste yi de moom mooy loolu moom boo leen joxee rek ñu ñu bind waaw kooku nag mhm. kooku nag dafa am taxawaay bu presse bi war a am de façon exemplaire ba dootul xalaatee noonu mhm. bu dëgg amee nu wax ko ka ñu fi nekk 2012 ba 2024 nguurab Macky Sall ak ñi mu àndal fatt sénégalais boor ak boor presse bi comme nekk ci complice lu nu war a dénoncer dénoncer wuñ ko ba heure bi la dal nit ñi nag ñu toog di setaan mooy dalaat ci presse bi bu paree ci Walfadjri ci keneen la mu ngi noonu ñu combat de principe de principe oui euh, jàll ci beneen sujet beneen sujet bi sax mën naa ni euh, mën na rester ci siège bi nax lépp rek présidentielle 2024 la ñuy wax waxu report entre autres donc ci noonu am ay front yu bëri yu nga xamante ne ubbi dañ ko di wax qu'aujourd'hui c'est le vendredi de la libération am ay ñaxtu yu bëri yu nga xamante ni ku ci nekk fas yéene nga ko amal ici à Walfadjri dina am à 15 foofu ci euh, maison de la presse à 10 heures entre autres lieux yu nga xamante ne jamono ji sénégalais yi dinañ ci génn ngir fësal seenub nakar mais pacifiquement parce que comme li ñuy wax kenn xeexul dara kenn xeexul kenn taalu waaw si bon je sais pas fii depuis longtemps sénégalais ñu ngi wax pacifiquement mais ki nu seqal moom xamul pacifiquement xamul jàmm ah, xamul njekk c'est ça xamul lu tax loolu mhm. damay delluwaat fa ma nekkoon dafa am lu bëri loo xam ne bu fekkoon les médias sénégalais dénoncé nañ ko à temps ca jamono. Mhm. du ñu agsi fii. dañoo fekk koo xam ne amutoon doole. Mhm. ñu di ko jàppale di ko jàppale di ko jàppale. Mhm. di ko defal le sale boulot ba mu indi ñu fii tey. moo tax xeex bi du yomb. tey yaa ngi wax pacifiquement waaw bu ñu toogee ba midi nag mu ne autorisé wu ko. waaw nu muy demee. qu'est-ce qui va se passer. yow pacifiquement nga woote moom wootewul pacifiquement. moom da na day dóore. waa léegi nooy def. xanaa nga lëlu dem julli jumaa tëju teg ataaya añ toog yor sa téléphone ba xeex ko ci téléphone bi. Mhm. naan waaw. du nu ko nangu waaw du nu ko nangu ci téléphone bi moom. du nu ko nangu. c'est c'est-à-dire que fi Sénégal toll moo metti. oui aujourd'hui quand je prends l'exemple de l'opposition sénégalaise. Mhm. il y a de la trahison dans cette opposition. Mhm. beaucoup sax. vous ne pouvez pas aujourd'hui bind lettre président Macky Sall pour mu régler problème mu parrainage bi ci li nga xam ne mooy conseil constitutionnel. Mhm. vous lui avez donné la vous lui avez tendu la perche. Mhm. Boubacar Camara na ma baal mais je vais le citer. c'est le premier à nous parler de report. tey damay toog am lu ma metti ne c'est dommage. parce que l'opposition ne doit pas prononcer cette expression ce terme là. parce ñaara am soit dañ leen ko ubbiloo wala ngeen ubbi ko ci on ne sait quoi. moom mu profité ci. nar nu sonalaat encore. Mhm. loo xam ne musutu fi am. Mhm. président Macky Sall moom ci boppam 2011. mais raak fëgg sur la table kenn du fi reporter élection. mën nañ ko def ci législative ci local ce qui est dingue c'est le président Macky Sall qui le dit en 2011. Mm -hmm. c'est Ismaïla Madior le dit et le conforte en ce sont les deux mêmes personnes qui reviennent nous faire la même chose. Mhm. danoo bare doole nag. waaw bu tànk nag mu mënuñu ànd ñun def face à cette histoire là. ba nu nu dundee dundab gara rek di continuer nii nekkee nii dan daanu ko wax ci tele bi nii bu ñu paree nga jaar dem ma jaar dem après ñu demaat toog. Mm-hmm. bu subaa mu defaat li muy def. Mm-hmm. comment vous pouvez imaginer yow. nga nga def sa conseil de ministres. ne bon ak Amadou Ba tout se passe bien. Mhm. finalement donc euh, voilà. Ah, Amadou est content non non Amadou Amadou kilifa mankaan ñu sama xarit bi Amadou est content de du report. Mhm. qu'il serait content du report. c'est la version qu'on a. Mhm. kenn mënul waat ne lii nii la demee. waaye nag il a contresigné gis nañ yëf yi. gis nañ papier bi wa wa déet déet. Mm. contresigné décret bi. dañ dañ laa woon këyit gu ñu contresigné. déglu rek moox la. Mm. <laughs> Ah, <laughs> am na solo daa am waxi kam am aw waxi suuf. d'accord man nu ngi si kaw bi. nu yem si kaw bi gis nañu kayit gu nu consigné ok waaye laataa kayit googu danoo wax ni dafa lànk ne du contresigné. waaw loolu dégg nañ ko. dégg na wax bi. Mm-hmm. ñu ne ah way euh, finalement le président et son PM se sont retrouvés tout se passe bien nangam nangam Amadou serait content du report donc finalement nee na waaw nañ mobiliser les troupes yow yow bokkoo ni mobiliser. Mm-hmm. yow fekk ngeen teb jàmbur. diree sa mbanab guddi bi ak si ndakaaru ñëw fekk ngénte jàmbur nit ñi toog di teg ki nga ñëw teg ne faax teg sa mbana toog naan ana ana indi leen matt yi nit ñi naan kii kana lii de lan nu def yow bokkatoo c'est-à-dire que le président Sall bokkatul bay décider c'est le conseil constitutionnel qui s'occupe du processus électoral léegi nga jiiñ conseil constitutionnel yow ka nga jiiñ di Cheikh Tidiane Ndiaye moom def bi gën a gaaw da nga maa jiiñ mu porter plainte yow baa bëggee lu leer président Macky Sall li ngaa def mooy garde des sceaux parquet procureur régler cette histoire là na leer mm-hmm. ga gaaw na mm-hmm. waaye nga ne noonu na leer nañ ko jaaree assemblée mm-hmm. nga taw yi toogaat di siisu di bëlde après nga ne sa yoon nekku si di jaay taar di nu napp waaw nu guux jàkkaarloo ñun nu nu def nu amuñu doole ñun ñu toog rek waaye pap yow kii pap dégg nga ma naan pap Seydina mhm. ay sa tur bu màgg bi Seydina Omar dafa am yow tooguma fii ba taay défendre dialogue ah, ah, ca contexte wallaay ca jamono xuloo nañ ci bataay maa ngi bii ca contexte ba boobu moom 10 milliards daa dama koy wax ca contexte ba uh-huh. dialogue mois de juin ak ka moo doon bien parce que bu ñu ko defoon ñëpp en commun uh-huh. du ñu agsi fii tey ci lii hmm. mais ñu bëri d'accorduñ ci te loolu la ma gëm hmm. fii nag bi yoon dialogue amu fi xamul fi am élection yow da ngaa bokkul bay woote dialogue yéen déggu leen wax bi ba jeexee jeex na nga tàggoo ba taxaw ci buntu kër gi di dem gesuwaat traversé waat salon beeg kër gi dugg taxaw dem ba ca chambre à coucher coucher boroom kër ga yow yow gan bi toog nan leen bon d'ailleurs bala may dem mënut a ne. Mhm. li ñuy wax ni président du la neex. mi mhm. dëgg la. Mhm. li gënoon jekk moo di ne na ko procureur réglé. ñu xool. kan la ñu jiiñ tuuma. Mm-hmm. en 24 heures ça se règle. ñu ne ah conseil constitutionnel kat diw ak diw ñoo am problème. Mm-hmm. dañ leen di seppi kan la ñu amal problème. Mm-hmm. diw ak diw ak diw. Karim affaire bi jaar na yoon wala jaarul yoon ba bu jaarul yoon il faut le rétablir. jaar na yoon donc Karim désolé. l'un dans l'autre le processus na s'arrête pas. Continue. mais mbirëb waa ba jiiba la ñu def c'est-à-dire mbirëb. lu ànd ak seytaan jaxasi dëkk bi génne say force de sécurité force de sécurité yi nga xam ni ka si nekk mérité na un million de salaire jëm kaw ce sont des ambassadeurs nga jël leen teg leen ci naaj bi mënuñoo gis seen ay njaboot ak yooyu te nag yow ñaari malaaka yi ñaari malaaka yay ñaari malaaka yay laaj eh, nag nag ñaari malaaka yay ak nakiir munkiir ak nakiir yay laaj yay laaj ca bàmmeel bis penc mhm. Ah. président yàlla nga dund ba sëtaat ci taw waaye daan la laaj na la ba nga doonee président Sénégal mm. yow policier yooyu doon génn di xiif agent sécurité yooyu doon génn nga leen di fay salaire yu tuuti ba pare di leen dóorlu ay doomu jàmbur ngay fekk koo xam ne day sa fayeeku salaire bu baax ñu fay kii salaire bu tuuti ne ko dóoral kee yow mi doon avaliser loolu te ñetti fan fan ba mel tar na de gis nga acteur politique yi mhm. yéen a ngi def lu leen neex mhm. yéen a ngi réunion guddi mhm. yéen a ngi lekk léeg-léeg nu nga nu teg gàmbaas mm-hmm. assaisonné ko caviar caviar ak la ca des mm-hmm. muur beeg ya ca des yu baax yooyu dino seen biir ak ministre boobu jëloon kii bi dibi ko nu mu tuddati mm, suñu kii Abdou Karim Sall ma ngoog kiiwal ah, suñu kiiwal di ko dibi yooyu yëpp dino saale borom bi dakaa laaj de gisa buñ ko nii mm-hmm. les gens pensent que c'est drôle c'est pas drôle ka gëm ak ka gëmul ka mu neex ak ka mu neexul ñetti ni yi meel ñaar ñooñu tiim la. Mhm. ak nanu toll ca la ñu wax. war laa tiim nan la yow ba nga yoree Sénégal yow ba nga nekkee ministre yow Baye Assane ba nga nekkee journaliste mhm. yow xaw ma lan ak lan ak lan keneen ak keneen. la nga signé woon ngeen la woon ngeen toog yéen nekk fii yore askan. 18 mhm. millions de sénégalais di leen fontoo comme ça. ba pare ne kenn du ko fi wax. app la. gis na bu bu buy jeex. mais mais pas est-ce que nekk aussi est nguur yi tànk nekk si tànk jeex d'autant plus que gis nañ ne Sénégal yi jamono ji fan yii fan yii pass ñu ngi ne teg. Mm. mais fan yii gis nañ ne syndicalistes yi jóg nañu élèves yi jóg nañu. ñëpp jóg jóg ba ci sax rappeurs yi ah. man démb bu ma seetaani rappeurs yi ci réseaux sociaux yi. mais boo ah, ah. ñu engagé wu la ñu. gis nañ kii woon kon est ce que nekkul ne tey jii neexul ba neexul waaye Macky Sall ay fanama ak kii bi laayeen bi aussi. ak euh, jàngu bi aussi évêque bi aussi. archevêque mhm. euh, Benjamin archevêque mais lu ëpp tuuru. Mhm. lu ëpp tuuru. Mhm. cest à tàggoo ba war a dem déggoo li ma la wax man président Macky Sall yow léegi ce qui s'est passé mooy APR ñoo am problème seen biir. ba ko yóbbu ci. donc pour seen problème bopp ñu bloqué élection bloqué élection. maanaam ñu ne président Macky ak Amadou Ba apparemment dañu am jafe-jafe. Amadou Ba la ñu jiiñ ne moom moo corrompre soi-disant. ñu ne ana preuve yi gisaguñ preuve. en tout cas coow li jëpp na waa PDS ñoo déposé projet euh, de proposition de loi par rapport à cela. Mhm. loolu laalewul ak lee dara. nga ni dañu ne ci crise te yow sa lu ndaw la lu tuuti mooy lu tuuti la ne assemblée démb wala baax ci démb génn na di wax sa copain sorient moo yaa ko nag gis naa ko muy tëb de waaw nee na Sénégal amul crise amuñ benn jafe-jafe mais Abdou bi muy wax lu mu doon tëb man moo ma jaax da doon tëb dafa est-ce que du bi mën ko jël <laughs> non non non ma xam naa Abdou Abdou Abdou Abdou Abdou Mbaw ma ma mankaan nuyu Abdou mankaan nuyu mais je je bu ma ñàkkee maandu ma ne démb ba mu paree interview boobu moom woo nañ ko téléphone. Ah, nee na amuñ crise de 880 80 ne ko yow crise am na wala am président ne crise am na nga ne crise amul effectivement Abdou a raison. crise amul fii. tayul li muy wax de léegi président Macky moo ñëw moom. ne crise am na euh, entre l'assemblée et kii c'est un peu terrible nangam nangam léegi ngeen semaine ba ca topp ngeen conseil des ministres mm-hmm. ne non finalement tout se passe bien mm-hmm. tout tuurul léegi descendez sur le terrain mm-hmm. pour lan descendre sur le terrain pour lan pour def lan pour amaat temps jàkkaarloog ñun li gën a bon ci àdduna mooy mooy mag bala jaaxaan la këpp boppam ndox bu dee ndox bu bon nag moo la la yées mm-hmm. maanaam nga jaaxaan di këpp sa bopp ndox mm-hmm. ndox ma bon nag bu dee boobu mm-hmm. mooy li nu dal ni moo ne dañu nekk Sénégal boo xam ni dañu am ay njiit yoo xam ne ñun ci ñoom la ñu compté woon dañu man ak maa amoon yaakaar ci président Macky Sall waaye dafa dawal ñaari at 2012 2014 ma ne ah 2014 2015 ma wéy jur ba yàlla na ko yàlla yërëm sama papa ne ma dafa amoon yaakaar ci moom itam. Mhm. ne ma bon dommage ça ça va pas le faire. Mhm. dommage et il a eu raison. fi nu toll nii nag li fi des mooy sénégalais yi doon benn. Mhm. nanu doon benn. syndicalistes yi. même la les forces de sécurité. parce que ñenn ñi kaa si wéetal mu ne la sonn nanu. Ah maanaam da nga ciy gis koo xam ne day dóor day songee dóor ba pare. toog xolam di metti parce que xam ne li ñu kaa defoon dëgg du yoon. te ñooñu dañu yot mais xool yéen gis ngeen agent de sécurité yi ni ñu sonne mm-hmm. mm-hmm. ak la mm-hmm. il mérite tout am na am na ci ñu baax wala waaye yow déggoo ma ne la il mérite tout mais mais Sénégal jafe-jafe bi ñu am mooy dañu am ay acteurs politiques traîtres ñoo xam ni dañ bu njëkk dañ daan toog te nag ña ci dàqoon dam yee ñoo gën a zélé aujourd'hui kat kaa si dëgg de bopp koñ daan doon toog di dem yee ñi daan doon doxee face booy ba xaw a fan yàlla indi sutura tey ñu toog di ñu jaay neex ñenn ñi di ñu jaay réewande arrogance pépp këfalu ba bien toog di wax ak ñun ak ndombal tànk <laughs> ak ndombal tànk ndombal tànk plus këfal boo boolee leen ndombal ak këfalu ke daa diis sonal nit ñi nag fatt nu te li gën a garaw mooy nguur bu la fattee gis nga gis nga fatt xool leen BRT bi rek fatt nit ñi la. fatt def ko lu xat. xatal yoon lay tardéloo sax. non cette personne ne comprend ce qui est en train passer. te baa ko waxee ñu ne la keroog am na waaju lu ma wax ab apériste la non mais il faut quand même ah, il faut non bu ma waxee sax dina xam ne moom laay waxal. Hmm. mais voilà des gens. nit nag daa ko respecté parce que nit la. Mm-hmm. mais ñoom respecté wuñ ñu. ñii respecté wuñu de. am na ci nag ñu baax ñu ne ci seen biir ñoo xam ne ndeysaan mënuñoo yuuxu mënuñu wax gore moo leen fa téye. mais seen xol a ngi metti parce que xam nañu muul bi nu nekk baaxul. duñu yabaa mooy l'école sec quoi. 2024 xam nga lu ñu waroon wax. Mhm. Seydina fi ñu toog nii tey. dañ ñu waroon wax yow nga toog xool sa téléphone mu ne cleng nga xool la BHS ne la jot nga. un de nangam ñu ne la ci xaalisu pétrole bi la zircon bi la uranium bi la gaz bi la phosphate bi la et cetera et cetera nous sommes dix-huit dix-huit millions de sénégalais nous avons des milliards de mètres cubes de gaz léegi ñun ñu ñu bëgg ñu continuer ñoom nag appel ñoo xam lu tax ñu bëgg continuer toog ah, ah xaalis bi ñëw dafa bare xaalis bay bare waaye di ngeen dem. dina leen ump ni seen doq gi de moom incha allah. <laughs> dem moom dina leen umpaale moom. Ah, waxtu wi waxtu wi xoj nañu ñu lay jaajëfal ah. noo ko bokk. amoon na solo. noo ko bokk. ok ñu leen di jaajëfal yàlla nañu yàlla defal mm-hmm. waxtaan bi neexoon na lool. waaye ndaje bi benn la. Mm-hmm. Euh, tey ci 10h ca maison du la presse incha mm-hmm. allah. Euh, bu buñ fa jógee également dellu si waat gannaaw julli euh, juma bi ak 15h ñu dajewaat jàkkaarloo le grand monstre et le petit monstre incha allah ak ñi ko wër ñëpp. Mhm. bëgg a faagaagal groupe de.